de l'équilibre Diop Soga nekk nekk aussi le. directeur technique le directeur technique de l'équilibre Diop Soga nekk nekk aussi le président garage u kalandoo yi fii ci Kër Massar sama gars yi ku ñëw ba Kër Massar doos dooree rek yi garage bi président bi moom la toggal ni muy Abou Seye mais tey du ma wax ci garage bi ah tey du ñu sax amna yenn sujet yo xam ne war nañ ko mën aborder mais tay dama ñëw pour ñu wax ci Abou Seye dama ñëw pour ñu dugg ci làmb. waxtaan tuuti ci quelques sujets yoo xam ne quelques sujets yoo xam ne c'est des sujets d'actualité ñu war koo traité ak moom mais li ñu war a waxtaane xajul ci une heure de temps xajul ci deux heures de temps xajul ci trois heures de temps li gars yi di wax naan euh, li ci euh, li duuf ci nag li xajul ci cin ni kon dañ koy dagg daggee rek tey premier épisode beneen yoon su ma ñëwaatee ñu traité waat beneen sama gars yi fii ci Kër Massar seen émission lamb rek bëri kese Abou Seye bu écrit jëf soog a nekk mooy sama invité moo fay maa lay ziar. sëñ bi maa ngi lay delloo ziar. ci loo nekk. ñu ngi leen di si jàmm. Mhm. lan ngay nuyu avant tout lay seetaan. salaamaaleykum euh, waa Axlu Làmb. Mhm. ñu ngi leen di nuyu ñëpp. Mhm. Euh, di leen ziar di wax nag bàyyi ñu kenn. Euh, nuyoo bi ñu si jiital waa jël nuyoo bi di ko teg ci loxo le président Cheikh Tidiane Niang. bu mm. Lansar. waaw mu séddale ko membre yi nekk ci groupe bu ARENS yëpp. waaw Seydina. Mhm. di nuyu Kër Massar. Mhm. di nuyu récemment GIE bi nga xam ne maa fi jiite mu GIE-PHM. di nuyu waa économie Jëf Sow a nekk. Mhm. di nuyu suñu président jël nuyoo bi teg ko ci loxo muy Mourou Fall. mu joxal ma ko waa kër gi yëpp. di nuyu encore euh, mbër yi. jël nuyoo bi di ko teg ci loxo xayta. Mm, xayta waaw waaw mu joxal ma ko waa équipe bi yëpp. moom mooy moom mooy magu xale yi. mooy seen mag. bursin mm. bursin. waaw bursin waaw. ñoom ñooy magu xale yi. Mm-hmm. noonu la fa demee loolu mooy nuyoo bi. loolu mooy nuyoo bi mais su ma nee Abou Seye kan mooy Abou Seye kan mooy Abou Seye ci gàttal présentation bi kan mooy Abou Seye. Ismaël Abou Seye benn waaju xeebu rek. Hmm. waaw nga teg nii nga ne waaju xeebu. bureau bi nga toog nii euh. waaw chauffeur yi bàyyi lépp lépp ne yow lañ doyloo yaay président nga ñëw fii war a gérer euh, chauffeur yëpp ñëw mm. équipe jëf soog a nekk nekk vice président ba pare nekk directeur technique nga ne waaju xeebu waaw loolu doonul taalib bi mu doo fii lépp loo gis rek hmm. rampe la waaw garage bi bi hmm. may ñëw Kër Massar mécanicien laa fi nekk hmm. liggéey ci mécanicien ba yàlla dogal ba euh, may dawal su ma liggéeyee mécanicien ba ngoon jot bu ma wàccee jël suma dem clando mhm. ba dugg ci garage bi mhm. nekk fi un membre simple mhm. dem ba nekk fi commissaire aux comptes nekk fi chef de garage tey ma nekk fi président jury bi hmm. noonu la fa demee noonu la fa demee côté làmb làmb dañ ko bëgg dañ ko dund dañ ko bëgg bëgg ko di ko dund di ko dund def bu nekkee xale waaw waxal ci kaw lay waxal ci kaw kay dégg la waxal ci kaw dégg la ñun làmb waaw comme ni ñu ko waxee rek waaw waaw Euh, bëri na fi tey. waaw li ngay ci làmb li nekk ay champion. Mhm. bi ñuy bëree mbapat dañ doon ànd ak ñoom. Hmm. di leen accompagner si di leen di leen di topp sen ginnaaw. ay champion ay grand champion ay grand hmm. xam ne dañ doon dem di bëri ji. Mhm. seen ginnaaw. ndeysaan di yuuxu di hmm. yëngal. supporté loolu loolu yàgg na lu tay. ndeysaan dañu mës a dëkk la. mais mais mais mais bëree woo. dañ doon fooyee bëri. mosoo mosoo takk ngeen ma quand même. en tout cas ak mbapat nga bu baax fii fii Kër Massar en quelle année à peu près 2006 2006 2004 2005 2006 2004 japp 2005 japp 2006 kon beure nga ni arène nga beurewul mais mbapat nga waaw beurew ma arène ci tuma arène mom beure na arène mom def na 6 combats arène 6 combats xama 7 combats suma jumul ben defet lambe men suma jumul tidiane fay moko fi dal tidiane fay bu lan sar mais yow yow da nga da nga yag lambe bëre mbapat ba toll ci benn niveau bi arrêté. Hmm. lu tax bëri waa ren. du woon xëy na suma saa wala du sama soir du ce soir bëggoon naa ko. du ce soir doon naa ko fawee. Ah. mais dama amoon métier dama concentré woon à. sa métier voilà je comprends bien. je comprends bien sa métier nga gënoon concentré wu. Ah. mais hmm, lamb ji dafa ne ci ne ci dërët bi. aussi nga nekk tamit waa joo xam ne sa famille tamit dafa am ay mbër. waaw am na sama famille ay hein? mbër. jinne mu daw salal la. sama jarbaat la maa ngi yaayam bokk ndey ak baay. jinne mu ndaw yow ak yaayam. waaw bokk ndey ak baay. papa boo jinne sa lan la. sama rakk la. sa rakk la ci nan. papa boo jinne yaayam ak sama ko jur. yaay mi la jur. waaw ñoo ak baay. waaw kon kooku sa rakk la. waaw sama rakk la moom direct. ndeysaan mais sa rakk yi ren baax la wuñ de ren neex la wuñ de moom bu ñu waxantee dëgg rek moom moom li am laa lay wax ren neex la wuñ de. jinne moom da doon jinne jinne lu euh, jinne mu ndaw ah. jàpp gars yi rek di wiiri wiiri wiiri wiiri rëll ci suuf wiiri wiiri rëll ci suuf waaye ren hmm. ay dah illallah benn séeréer la dajal hmm. Moussa Céré la dajal Moussa Céré këpp yelwaanam hmm. jinne mu ndaw musul daan quatre combats quatre victoire première défaite de jinne mu ndaw saison 2022 2023 loo ci commenté waaw sant sant waaw daanu sant daanu sant waaw ma ci xam ma ci xam xam nga la waaw liggéey bi ngay liggéey Seydina mhm. boo ci amee dara da ngay sant ci li liggéey waaw bu baree da nga ci sant yàlla waaw da ngay sant waaw waaw nag waaw su su ma sañoon waaw su ma sañoon waaw tey jii mhm. ci li ngay liggéey mhm. saa boo demee boo ñëwee da ngay gis ne am nga ci tey jii réussite totale réussite totale mais léeg-léeg mu cool waaw il saa mu cóol nag saa mu dëgër këcc. waaw yenn saa yenn saa bagage yi waaw mu mel ni. làmb. Hmm. Euh, fekke nit ñi yóbbu. Hmm. ak làmb dafa wute. fan la nit ñi yóbbu làmb ak ak fan la féete. dañ jàpp ne làmb ñu loolu daanu. non ñun ñoo dul daanu man duma daanu parce que bëreewuma micro laa yor mais ku lu kuy bëre di daan jàppal ne di nga daanu. waaw xam nga dama laaj. waaw. lu ma neex la wóole ma waaw waaw surtout rek écurie jëf soog a nekk sax waaw waaw mais surtout tamit sa ñaari rakk yi tamit jinne mu ndaw ak papa boo jinne sa jarbaat ak sa rakk waaw mais nañ sa jarbaat ba pare yee eh, jinne mu ndaw ma neex la wóole neex la wul de waaw mosul daanu waaye ren daanu na de waaw daanu na de nga ne la wóole waaw waaw dama def benn émission waaw waaw yaa ngi dégg mhm. ok euh, jinne mu ndaw jinne mu ndaw waaw jinne bu ndaw waaw nekk fi di jënne jënne lu jàpp booy di këpp seen yelwaan sama sama booy bi Modou Lo jaay pare fii la ko jàpp jaay ko pare daan ko jële bu rëy romb ko euh, wax ko sax massa waaw waaw mën naa fekkee loolu jënne mu ndaw yi moom yooyu la daan def moom waaw dangay jàpp imposer la doole forcer la ne la dama lay daan par force waaw waaw ren daanu na de waaw loolu la première défaite kay di jënne bu ndaw léegi problème hmm. euh, xam nga làmb ji hmm. ñi fi gàddu couronne roi des arènes waaw amul amul ku ci daanu. Ah. amul ku ci daanu am na de ku ci gën a néew défaite mooy Yékini ah. avec deux défaites ah. te dafa daanu daan waat bàyyi naa bëri peut-être bu continué woon instant bi fekkoon na mu compté trois défaites wala quatre défaites wala cinq défaites kon hmm. loolu mooy jinne mu daw euh, Papa Boy Djiné hmm. star bi star bi la star Papa Boy Djiné sa rakk jooju nga xam ne sa yaayam ñoo bokk ndey ak baay sama yoon nekku ci nag man man man nekku ma fi jëla ay karak bi jàmbaar la ak man gëw yoy. non non sa waay il faut que ce soit bien clair sama gars nga et tout et tout et tout. mais euh. instant bi caméra bi mi ngi tàkk. du euh. complice. du ma sa complice ça euh. sarak moo bëree damay ñëw ñu waxtaane ko mais man li ma gëm moom laa wax yow tamit li nga gëm nga wax ko. Hmm. yaa may dégg ji star bi Papa vous Djiné la star de Guédiawaye la star de l'écurie hmm. le samedi passé le samedi 8 juillet 2023 Sambay Fall nous avons tëggoon à l'arène nationale Papa Boy Djiné jàkkaarloo fa ak Nandi Fall. Hmm. mu bëree Nandi Fall daan ko jële bu rëy hmm. jële bu leer hmm. jële bu amul benn hmm. euh waxuma la ci carrière Papa bo Djiné avant tout euh combat bi noo ma analyser combat bi bam koy jëlé nim ko wajalé jour ci li mu daanu ba mu daanu après euh, noo ma koy analyser euh, celui-là Papa bo Djiné waaw da nga ni ci mo naan di waaw waaw mo naan di faal waaw ñëwaguma ci carrière am d'une manière générale man dama lay wax né la waaw Papa Boy Djiné. Hmm. combat bu mu mës a am yaay xalaat de. waaw bu mu mës a am xalaat looy wax de. combat boo xam ne mës na ko am. waaw waaw waaw waxal waxal lu ñëwal. waaw xam nga. ji da nga doon lim da nga ne nii mosul foowee làmb waaw ñu woon benn benn nga ma jox de waaw Papa Boy Djiné waaw ci carrière waaw ci côté làmb waaw ci làmb làmb ma wax loo xamante ni si lu ma leer la te lu ma wér la wax magam nga de Papa Boy Djiné ñàkkul jom sarak la de sarak la de ñàkkul jom ñàkkul fit ñàkkul fit te euh, yabul ay supporters am yabul ay supporter am déedéet ñàkkul jom ñàkkul fit yabul ay supporter am dëgg laa lay wax nii waaw waaw waxal Papa saa bu amee hmm. hmm. ce que waaw est-ce que ce que est que man leer bi asta est-ce que xam nga waaw waxal da nga am lu may wax léegi nee na da nga ma nga yor waaw waaw kuy caaxaan mënu hmm. koo yor d' accord kuy caaxaan. je plaide waaw d' accord. mënu ko je suis d' accord waaw. su ma nekkoon kilifa boo xamante ni. Mhm. c'est-à-dire damay wax lu ma xamul. Mhm. damay wax lu ma maîtriser wu. duñ la dénk mel ni ma lay dénk ñaar ak ñett. très bien waaw waaw. kon lépp lu ma la wax lu ma wax sarak ngay wax de. waaw sarak ngay wax de. lépp loo xamante ni wóoru ma du loo wax rek du loo wax rek man nangu de sarak ngay wax instant ah, sarak la sa sa yaay yaam ñoo bokk ndey bu la neexee nga nga nga traité ko ay laurier bu la nga tagg ko bu la neexee nga bu la sarak mais lamb laay wax waaw mais bu la neexee nga suturaal sarak parce sarak la ci lamb li ji may wax waaw après loo ci contacté ka contacté ko ah. euh, waaw ma wax la waxal bu jëlee combat. bu jëlee komba waaw. li mu war a entraîné dina ko dem entraîné. li mu war a entraîné dina ko entraîné. dina ko entraîné est-ce que. waaw muy benn. waaw ñëwal. fépp fu mu a dem ñaan. waaw dana war a dem ñaan. dana dana fa dem. d'accord waaw d'accord nangu naa waaw nangu naa ñëwal. lépp lu war ci làmb ji. Mhm. te yéen xam ngeen ne Papa Boy Djiné. lépp lu war ci làmb da koy def. Mm. ba mu des nag. noo ko seede de. waaw ba mu des ci biir géew bi waaw. waaw foofu. waaw la mu fay def. waaw bëri na mbëri ko fay def. c'est-à-dire. mooy. Hmm. bu ñëwee daan. Hmm. bëri na mbëri yoo xam dañu ñëw daan. waaw su ñëwee daan. waaw bëri na mbëri yoo xam dañu ñëw daan. waaw su ñëwee bëriwul daal. waaw bëri na bëri yoo xam ne nee nañ bëriwul daal. am na combat yoo xam ne bëriwul daal. waaw moo tax may la ba ci bii ba ci moo tax may la waaw moo tax euh, bu ñëwee bëriwul. waaw xeexuñ. waaw daal. waaw am xam ne bëriwuñu xeexuñu hmm. yaa ngi dégg tijjil ko tijjil ko tijjil ko tijjil daa bëgg a sot tijjil ko tijjil ko tijjil ko daa bëgg a sot tijjil ko man daw ma yooyu tijjil ko danaa ñëw pour sot sa waay toogal ne toogal ne rek waa ceenal ne rek waaw waaw après nga ne yaa ngi waaw waaw bëri na mbër yoo xam ne waaw ñëw nañu hmm. bëriwuñu hmm. xeexuñu hmm. daal waaw waaw après waaw am na bëri yoo ne. dañ leen a duma. waaw dàq leen. waaw fekke naa waaw. waaw bëri na bëri yoo xam ne. waaw dañ leen a dóor ku ñu daw génn làmb naa tamit gis naa ko. Mhm. waaw fekke naa waaw. loolu ah. maa fekkee waaw. kon nee naa la. Mhm. ci biir Cortes li ma jox nii. Mhm. lu ci am na ci biir làmb. Abou Seye Abou est-ce que yow Papa na la. bien sûr. bu tax déggal na la. Euh, euh, sa waay sa naa la man faruma féetewu ma man sa sama sama yoon nekku ci je pose mes questions yow mii magam. yow mi magam sa yaay ak yaayam bokk nday ak baay yàlla dégg la xam-xam ci laam nga nekk vice président de l'écurie Jëf Soga nekk président ba ngi nee toog xaw ma da ngeen maa bëgg a sot xaw ma man man lijjantuwuma leen président vice président trésorier boo leen toogoon ñeen li ma war a posé dama koy posé samay question mm. yaa ngi may dégg yàlla dégg la xam-xam ci laam papa yàgg na am combat nga yow nga daan participer manam pour mu ñew fi eh. nga ko équipe jëf soga nek hmm. def ak atelier amna wala amul. à la nest pas. Ah, eh? nga daan ko équipe jëf soga a jox koy ay ay clé. Hmm. manam yow indi sa participation. Hmm. na indi participation. keneen nonu keneen nonu keneen non. mais je veux dire une chose. Je posé la question. est-ce que Papa Boy Djiné déggal na la. mais là, par que est-ce qu'il respecte tes consignes.

loo ci xalaat. waaw te ni ma koy laajee noonu la ma laajee président Modou Boye. Mm-hmm. yaa ngi dégg. waaw waaw waaw. ñu wax ko suñu xalaat. Mm-hmm. waaw waaw. su ko jëlee. waaw fépp fu mu toll ci combat bi. Mm-hmm. mais dina ci waxtaan ak ñun ëmbatul dara. waaw d'accord. yaa ngi dégg maa ngi dégg. papa boo jëlee nag dafa am kër lay am kër baay. waaw waaw yaa ngi dégg. waaw am staff tamit à l'écurie Waalo. am staff à l'écurie Waalo. waaw waaw yaa ngi dégg. waaw tey. li lay woon papa boo jinne respecté na Abou Seye mm. wala respecté na famille wala respecté na ay supporter am mm. lépp da koy jël teg ci yoon lépp da koy teg ci yoon ci yoon je suis pas d'accord je suis pas d'accord man ma ñëw lu mu tegu ci yoon waaw ma ñëw euh, Abou Abou je t'aime bien je t'aime bien parce que

jëfee gu ko waneegul ci làmb lu tax nit ñi topp ko bu ñu waxantee dëgg rek. Hmm. de un euh, deuxièmement Abou Seye est-ce que Papa Boy Djiné respecté na entraînement. est-ce que hmm. respecté na entraînement je pose bien mes questions bu ñu toogoon maa moom émission dama koy poser waat la même question est-ce que respecté na entraînement. Hmm. est-ce que respecté na entraînement. c'est une question que je me permets de poser parce que ba mu sumee ko taxaw ci biir géew. man Seydina Oumar Dia man. gisuma musculature ci yaram bi gisuma muscle ci yaram bi. Hmm. kaw ba suuf hmm. gisuma musculature. Hmm. Nani Fall ba mu sumee taxaw da ngay xol xam ki il a présenté quelque chose. muscle yi taxaw macha allah des muscles saillants yaa ngi may entraîné ñeu taxaw mais papa est-ce qu'il s'entraîne mën na bëre may ma tuuti. man taxaw na fenen ak fenen ak fenen mais instant bi loolu ma doon défendre. est-ce que duma ci génnaat. yàgg naa toog feneen ñu ne Fapal ji ne mënul bëre man len da ngay na xamul. ñun ñu ko xam ba muy nekk xale bu ndaw Papa Boy Djiné ba muy bëri deux voies yi mm-hmm. ma ñëw fa di ko photo mu indi photo yi amul lu mu ko fayee mm-hmm. mu dirigé ma ci commando mm-hmm. ma dem commando di waxaale di waxaale di waxaale ndeysaan yàgg na boo indee dix photo boo waxee ma ne la maa la ma grand xoolal tey xoolal damaa wàcc xool affaire yi dëgg dama la jox deux mille cent boo ñëwaale suba ma jox la mille cinq cent mais <laughs> photo yi <laughs> jox ma tout temps five <laughs> di ma daw la gauche droite yaa may dégg xam nga jamono jooju ak tey ute na koo xam ne boo doon 10 photos mënu koo fay hmm. tey bu demee ba làmb di ko fay 2 millions hmm. wala ñu ne quelque chose de ce hmm. boo ko fay 2 millions mu dem utiwaat yeneen 2 millions 3 millions xëppaat am na sant yàlla mën a bëri ba woon boobu ba muy nekk dafa boobu dafa njooloon nii sew booba dafa njool sew yaa may dégg amoon souplesse amoon rapidité d'exécution man gëw ma diw mënoon na bëri léegi mënatul bëri gëmatuma ko gaw ma ko de. yaa ngi wax de non non déggoon ma sa li ma la man mm-hmm. sama conviction réelle laay wax. Mm-hmm. man gaw ma diw manoon na bëri mënatul bëri. Mm-hmm. gaw ma ko de xam nga laa gëm. xam nga bëri réflexe la. bëri nee nañu c'est l'intelligence en mouvement. mais bëri day ne ci xel. day ne ci xel. da ngay roofoog nit ki. xalaat sa xel jox la dara nga laaj ko sa yaram sa yaram jox la ko nga appliqué loolu noonu. mais boo jëlee yenn poids yu diis. ñàkk nga réflexe. Mm-hmm. ñàkk nga euh, ñàkk nga rapidité. Mm-hmm. ñàkk nga mobilité. Mm-hmm. mën nga taxaw roofoog nit sa xel am lu ma jox nga nga nga laaj ko sa yaram sa yaram du ko àttal. est-ce qu'on est d'accord. man loolu laa gëm mais man gëw ma ne papa mënoon na bëri dee ma tay mënatul bëri. yaa may dégg mais li mu jot a wane ci làmb ba mu duggee ci arène bi ba léegi. waneegul lu war a mën a tax ñu ne kii gëm na làmb wala respecté na làmb. parce que tamit bu ñu waxantee dëgg carrière bi am na combat yoo xam ne day ñëw du bëre daanu. Hmm. am na combat yoo xam ne day ñëw ba nga ne mi ngi ci. Hmm. mu ñàkk combat bi gën a métti ci làmbam bi nga xam ne dañu woon bu demee waa ji benn voyage da koy def mooy diggante ak Jacob Baldé. Hmm. Jacob Baldé taxaw 5 ans kenn mënu koo daan. papa moo ko tenir en effet. ba tey jël amul. kon jeex wax nga wax ji. da faruma de. faruma féetewuma. dèjà wax waa ñëwal. Euh, ñëwal. damay ñëw ak yow léegi ci waa ñëwal. mënon na bëri dem tay lotuma bëre amul xel mu ko man gëwuma ko papa boy jinne ñi ko top waaw dañ ko top dip ba mu ba muy mbapat mbapat la jëlé mbolon récemment ma lay wax ben affaire mhm. euh jugé na jël ko mhm. ma ngi yoron ben ford focus mhm. jëlé ko fofu ni wara dem cham gën mo fa bëre ben mbapat du won parce que comment la li ma topp ci ay moto. Mhm. ak ay kaar nag mun xaw ma nu mu toll. déggoo li maanaam bayre ji dafa yàgg. yaa ngi dégg waaw papa dama naan fa téye lamb. déew teewul lamb. si teewul lamb teewul lamb am na bayre am na supporter nit ñi bëgg nañ ko ah. mais def ko fi tuut. dara xaaral wala kasiran. ñu ngi ci baara tuut bi joué gul entré gul sax en en en jeu. xaaral wax la. waaw joué gul sax bañ naan dugal na wala dugal. waaw xaaral wax la waxal waxal ñu ngi ci baara tuut bi. Faa boo jëlee. papa su bëree. waaw su daanee. waaw coowu lamb am ngeen liggéey waaw yow may ma sama jàmm waay. may ma rek may ma sama jàmm su baaloo. waaw tey ñëpp ñu ngi soxla jël papa interview ñëpp ñu ngi soxla jël ñu ko def. man de mosuma koo jël interview. yaa ngi dégg bi ma téye magam yow laa ñëw jël si. waaw jël si mais moom papa mosuma koo jël interview. waaw waxal waxal. delloo rek nga yoo xam ne taxaw nañ suñu toll nit ñi concentré wuñ sax ndax. waaw daa daa la baax yow waaw waaw waaw mais bayre la. waaw bayre boo daanee day siiw boo daanoo day siiw loolu mooy bayre. promoteur bi dëgg laa ci. waaw ak i moromam. waaw waaw la ñu dem seeti pour tëjaat combat bi. man nii avant combat bi romb naa fa ànd ak booy kii nu mu tudd caatu Linguère. waaw moom laa demoon jëli ñu bi lépp luy nekk ci làmb ji man la koy xaar. ci man lay xaar mobilisation ci man lay xaar tous mu neex. ci man lay xaar bëri mu neex. mobiliser na moo ëpp lim mobiliser. day bëre daanu mobilisation. su ma ñëwee indi supporter bu tuusee. su ma feccee mu ne. waaw waaw sa baat ca kaw. waaw waaw su ma bëree dina neex. soit damay daanu déedéet soo defoon tànk déedéet. soit damay daanu. ngeen waaw. soit damay daanu. waaw wala ma daanu. yaa ngi dégg. waaw te nee naa la ñetti yoon. Hmm. ci làmb ji. Hmm. nit du ko fi dindi. am na fi. Hmm. nee naa la am na ku ba ñëw ci làmb ji. waaw bërewul. waaw daanu. waaw waaw waaw fekkee naa fekkee naa waaw. am na ñu ñëw ci làmb ji. Mhm. ñu dóor leen dóor ci brique wala ginnaaw waaw. am na ñoo xam dañoo ñëw ñu dóor leen. ñu génn làmb yi duñ ñëwaat. waaw fekkee naa. kaay ñëw bëri ñu leen fekkee ko dem fekkee naa ko dem toog ci médecin bi ne ko du ma bëri waat de. yaa ngi dégg seen combat du ma bëri waat loolu moom mën ko fekkee. am na waaw. du jeex waaw te Pawa mosul def yooyu. te yàlla dogal na ni bu ñëwee. Mhm. dina ñëw mhm. dina indi bëri. soit que daan nañ ko. dal bi yomb na daan bi yombul daan na d'accord mais bëri na li mu indi am indi na ko. waaye ku xool. Hmm. Papa Boy Djiné. bi mu daanu. Hmm. nga seetaan nee nga combat bi gën a métti ci combat bi. waaw adversaire bi gën a dangereux. Jacob Baldé ci côté yëpp. cinq ans sans défaite. non ci côté yëpp. benn défaite la am premier combat bi mu fa jugee daanaka. wala sax musu daan loolu kan papa Jacob Baldé Jacob Baldé waaw ba premier moo ko daan kii euh, nu mu tudd Dame Suguer numéro 2 moo ko daan mu jógee fa taxaw cinq ans mësul daanu papa moo ñëw tenir ko en échec léegi nga xool combat boobu waaw combat bu métti xool leen constaté leen dëgg-dëgg combat boobu waaw ñu ne mooy adversaire papa bi dalay ba léegi mooy adversaire bi gën a tàng ci bi gën a téye waaw ci côté yëpp nag waaw mystiquement physiquement techniquement staff bi waaw dañ naan kan a nekk ci bi mu limee bi mu limee ñu nekk si ginnaaw Saka Balde. dañ naan tiit war am. waaw. waaw te bu ñàkkoon fit tamit du jël Jacob Baldé te papa bu ñàkkoon fit du jël Jacob Baldé parce que bu ñàkkoon fit bu ñu ne ko kii taxaw na juróomi at daanul danaa noo utalee ma leneen très bien ça ce qui veut dire que ne lamb uti ci lu yomb jël nañ ko waaw te gis ngeen lamb ji ni mu demee mu demee lam ci war a bëri bëri petit petit moo yàq lamb ji lam ci petit lamb petit lamb ji gis ko mi ci bi la bët yàqu lamb ji. lamb ji yàqu avant bët yow xam nga ni amul benn sport. buy nit ki di def mhm, mhm. arbre di sañee. combien de temps muy sañee. waaw waaw ñu dem yobbu ko. waaw. yeen ngeen xam li règlement wax. waaw cest man dire zé bi. dama koy blâmer. ñun micro lañ téye dé dama koy blâmer. ñun du ñu règlement de micro lañ téye. dama koy blâmer. waaw dama koy blâmer. règlement. dañoo waroon def nii règlement bi pour mbëri gi la règlement bi mbaru dafee règlement pour ñëpp la mais bu règlement xasee wax ne pour ñëpp la dañoo war a yem ne applicable c'est trop bien mais dañoo règlement bi mbër bu am licence warul dugg ci géew waaw ah waaw ñaata mbër bi gis seen rek di bëri dugg ci géew bi Balla Gaye moo ci mujj saatee di bëri ah diwa li ma wax si waaye man Ama Baldé moom moom lay waxee fi mu nekk dem ca Ardo mais mën naa si Ardo menacer de lan. waaw te eh, bàyyi sos waay. non si non non non bu sosal nit bu sosal pël bi luy loolu waxal waxal loolu leer de. waxal loolu leer de Ama Baldé moo def lan nga ne. moo def lan. nga ne moo def lan. moo def ardo. waaw amul droit bi ardo. waaw amul droit bi waaw. mbir mu am li parce que coach amul droit taxaw fa. waaw du coach. coach bi moo fa war a taxaw ak manager bi. mën naa la gënal image ma nga fa taxaw. mu taxaw ci ci ci. te bi mu ñëwee mi ngi ma fekk maa ngi taxaw parce que man ma ñëwee dama ñëw taxaw ak casquette journaliste. waaw parce que dama yor Miroir TV xam nga dara. Miroir TV waaw. yaa ngi dégg. waaw je suis le patron de presse. Mhm. yor Moumbaa TV yor carte. Mhm. ñëw taxaw maa ngi fa. waaw yaa ngi dégg. waaw bi mu ñëw mu leen bàyyi leen bëri mu bëri ba mu bëri. c' est du menace Ama Baldé Ama Baldé si. moom moo ne médecin yi bàyyi leen ko mu bëri ba mu bëri yaa ngi deg mhm. sa waay man daw ma yoo la de. loo tax ko ba tax ñu jël ko. di ko di ko di ko fat comme yeneen nit. bande loxo bi bande loxo bi. imagine loxo. arbitre sifflé mu mu mu mu mu. mu tegi bandage bi sànni. non mu dem ba Pape Jine dóor ko ci loxo. waaw ñu continué benn bandage denc. mu continué di sañewaat. waaw ñu daal dugg ko ci ardo. léegi yow li nga bëgg a wax mooy foofu dañu waroon arrêté combat lamb dafa jeex kase verdict bi jox Papa Boy Djiné victoire lamb gi dafa jeexoon je suis d' accord lamb gi dafa jeexoon waaw léegi man nag xam nga nag man man ma la ma boo wax rek damay ànd ak yow ñaareel ba waaw ñaareel ba këlee daw waaw yoroon ci mikaay waaw daw dugg ci biir géew waaw d' accord mu tudal tudal turam petit waaw petit petit d' accord mu nekk sanction jëy waaw mais bu ñu tegee sanction ci kaw ci kawam sanction benn waaw dañuy teg ci kaw Ama Baldé sanction fukk waaw parce que warul dugg ci biir géew en tant que mbër bu am licencié nekk mbër bu mag. waaw dugg ci biir géew ba di fa fekk booy bi. ba di ko dóor ay dam loxoom. li nekk ci làmb ji kenn mënu ko wax. Mm-hmm. Mm-hmm. mais. Mm-hmm. li ñu naan écart de balaa problème bi egg foofu. bi bi Jacob bi am. bu carrément dañu woon ni. ama ah, euh, Jacob Baldé dafa am ginnaaw. ñu woon ni dafa am ginnaaw. c'est-à-dire que loolu ci làmb te bu baaxul ci làmb. bu loolu dañu war a yemale ñëpp même point d'égalité. ñu war a yemale ñëpp. même point d'égalité mais daal yow jàpp nga ne sa ko ba mu di dagg. waaw ah. di ko dagg Balla Gaye di ko dagg. ñëpp moom la ñu doon ko dee moom la ñu doon même même point d'égalité biir géew bi dagg kii la

sëñ boobu dama piri dama tëtmiir man. bu nit ki même bu fekke ni yow meun nga bëre sa tàngooru yaram mais yaay ngi sañe direct jo xamanteni ne si mi ngi mi ngi yow te ñom dañ la wara protéger. te ñom gis tan ne yaay ngi sañe direct waaw parce que te buñ la bàyyee nga continuer blessure meuna mën na aggraver. tàngooru yaram bi day day gën a kuule. dañu war a arrêté la. yaa ngi défendre sa rak de. non non défendre défendre sa rak de. kon ku gis Papa Boy jinné ni mu bëré ci combat bobu nga mën ko sédel ni Papa Boy jinné du ragal

ana ana résultat yi ana palmarès bi. foo teg yàlla ana palmarès bi. foo teg yàlla sant yàlla eh yàlla nekk fi. non non boo dugalee yàlla affaire day affaire dafa mujj compliqué non non. non non nañ nañ analyser. nattu. waaw waaw waaw doomu aadama. bëgg ñu lii ngay def. waaw yàlla lii bi amee mais mënoo dara. effort bi ñuy def nii. waaye boo dugalee yàlla boo dugalee yàlla da ngay nii. koy def. waaw mbër mi day dem mi ngi entraîné. yaa ngi dégg est-ce que ñeme na entraînement. ma ku te nii da ko bàyyi prix la comme yeneen minute. est-ce que ñe euh, combat bi. xeex bëre xeex bëre xeex bëre ñaari minute. moom Nandi Fall bi daa daa daa daa. moom daa daa plongé daa plongé placard Nandi Fall xajal ko. waaw moom espace la ko mu mu mu mu ne relli ci suuf. lu loolu lu loolu yow palmarès Papa Boy Djiné la 10 combats 10 combats 3 victoires 7 défaites qu'est-ce que ça veut dire ana champion bi ana champion bi waaw c'est toi aussi c'est ton frère je comprends mais mais ana ah, palmarès bi moo wax la benn waxal xam nga avant ñu créé Jëf Sogo nekk waaw man mi ak Mour Boy waaw dañu nekkoon fi yoroon écrit waaw jëf soo nekk. écrit mm-hmm. am fee écrit am fee. Mm-hmm. Euh, président Aldo Diop. Aldo bu Kër Massar. woowu ñëpp. Mm-hmm. nañ créé Kër Massar mbooloo boole écrit yëpp muy benn. ñu boole woon écrit yëpp muy benn. booy see jóge Pikine ñëw euh, Kër Massar. waaw jóge écrit mbooloo ñëw Kër Massar. ñëwee Kër Massar. booy see ñaata dafa la tey. six défaites. ci combien six ans ou sept ans. nga teg la ay naaj. waaw six défaites successives kay. xoolal défaite après défaite après défaite après défaite après défaite amul daanu def intégration seen seen diggante amul défaite défaite. défaite daanu daanu daanu dafa daanu daanu daanu daanu daanu daanu waat. bi yàlla génn génnalee ci moom yooyu te bu sa saa buy daanu. Hmm. boo seetlu ñu ngi gis ko waaw. ngeen gis yaram bu baax. waaw gis calcul yu baax. waaw gis physique. waaw waaw. waaw hmm. dafa daan daan daanaat ñett ñi gën a ci génération boobu. waaw daan daan daanaat ay xale. waaw ñetti victoire daga daal. ma ma ma ma ma ma léebal la ba muy bëreeg Siteu. Hmm. ba muy bëreeg Siteu. Uh-huh. bokk na ci combat yi gën a déséquilibré ci histoire làmb Sénégal. Hmm. man dama yor ay statistiques yoo xam ne dama ko denc parce que bu ma ko teel a publier gars yi ko. Comment il gëna a déséquilibré mm-hmm. ci histoire lamb Sénégal mm-hmm. Boy cest cité ci la xam nga mm-hmm. Boy dafa ci six défaites cité tu ci six victoire ñu bolé dafa ci six victoires, six juroom benn victoire mais cité tégalé Boy Seye tégalé juroom benn défaite ñu bolé Boy duma ko ci le professeur de l'arène Tidiane fay Tidiane ans ans ans daanuwul Zos Zos ne ko. Mhm. mu ñëwaat pour rectifier le tir ñu jox ko Boy Sey. Mhm. Boy Sey daan ko. Mhm. ba tey ñu xool booy bi nekk ci yoon am doole mën a bëre am tuwe tuwe nekk ci yoon bëgg a dem ñu ne jëndi xeere jaaral leen ko ci booy sëy bu daanee booy sëy dana am ndam loo xam ne kenn dootu ko miimati ci kaw euh, ci kaw suuf ñu jox ko booy sëy booy sëy daan ko te ma xamal la benn les trois combats trois victoires bàyyi bëri te ma xamal la benn affaire waxal waxal amul benn combat ci booy sëy yi mu daan yépp bu booy sëy dem moo ne ñàkk jom déedéet bu ci nekk dina entraîné ba ñëpp ñu xam ne kii dafa yóbbu. mais bu sumee koo taxaw da ngay gis musculature bu impec. da ngay gis musculature bu impec. gisuma ko ci Papa Boy Djiné. mais da Sarak. musculature bi mu doon bi mu doon présenté. ci Sarak Abou Faye. muscule musculature dafa am lu muy reflété ci mbër. mais musculaire te am doole. ma eh, taa ko at ko ma taa euh. def non non bàyyi li ngay def. maa ko gën a waaw waxal. saway bu dé sarak rakk ji daa jàppale day dem bëri jëf entraîné gis nga gis nga boo xoolee waxal lay dafa la sarak de yaa ya ngi plaidé sarak instant bi waxal xam nga ma ngi wax ci bo Seye de waaw waaw waxal wax ci mom lo xamante nit ñi xam nga waaw lu rafet waaw lu nice waaw lu nice waaw yaa ci lamb laa wax ay ñu ñu nekk di rosé pa bo Djiné ay fleur wah, imbe wah. ngay def dé mom ngay def mais mais dama tollu ci dëgg ñu la ko ci dëgg waaw damay wax ci dëgg. waaw waxal waxal mais yaa ngi défendre sa rakk de. lamb sa yaa ngi am yow bokk. la de. lamb leneen a si yam. sa la de. dèjà nit dina jóg investir ci benn affaire. waaw di ci rey pom. waaw te mu ci réussir. waaw. yaa ngi dégg ah kay sonn ci lool ba a xàddi waaw jékki-jékki yàlla ñëw yéen ñii mbër ba mu ba si mu fa dem yoonu loolu kay ko fi maa ngi koy tooña sa waay keroog nee naa ko ñaata mbër ñoo fa jóge jeex man mii bu ma toogoon tey di xëy ma rek dinaa génne au moins dix quinze personnes yoo xam ne guy gi si lu mu topp mi bàyyi guy gi dafa bëree daan bëree waa grand combat dafa daan gabaar si numéro deux jóge ci daan cin bu yof en 2016 boobu la gëj a bëri la bàyyi loolu ko yàlla lamb euh, waaw Seydina. Hmm. man du ma contesté. Hmm. nee naa la sànq dafa téye Kalpe Ba waaw dara. li tax mooy dafa téye la am. dara. mbir yi di tegale ay victoire yu jeex yu dul jeex. ndeysaan koroog rek maa koy dégg sunu. Ah, bëri kay bëri na fi daan daan daan daan daan daanaat fe mënul fexe ba am combat daa jékki-jékki bàyyi bëri man kay gis naa ko gis naa ko gis naa fi champion yoo xam ne benn combat la ñuy bëree par année. xam nga deux ans trois ans ñu bëree benn combat. xam nga ndeysaan maa ngi koy nuyu au euh, euh, xam mhm. dafa gis benn journaliste def euh, doon rapporté combat bi. Mhm. bi mu rapporté combat bi. Mhm. nga gis mu ne Papa Boy Djiné xamul dara na dem jàngi bëre nga bayyi day hmm. ngi hmm. réaction à sew la père jili ñaaw na ko dañ ko ko kooku moom bu rapporté ni hmm. mais mom tamit na dem jàngi rapportage bu ne papa na bayyi bel na dem jàngi waat bëri mom tamit na dem jàngiwaat reportage waaw waaw parce que nit ki à chacun sa façon de voir les choses am bëri yoo xamante ne si nit doore na ko bayyi waaw ko xamne am ak ko jege jege jege ko xamne bu ak loko ko bëgg bëgg bëgg bëgg mhm. dafa am ñeent yo xamne mhm. kenn du ko bayyi lu nit muy lan diine. sa diine nit ki ko bàyyi loo diineem. waaw loolu benn la. Mm-hmm. nit kenn du ko bàyyiloo waajuram. sa waajur waaw ëpp naa def waaw bàyyi sa jabar. wala bàyyi sa jëkkër. Hmm. nan la ci yàlla musal. yaa ngi dégg nit kenn du ko bàyyiloo liggéeyam. waaw mais eh, yow Harouna. liggéey mooy teraanga. Harouna Sall wax na démb Papa Boy Djiné est du bàyyi làmb. waaw déggoo li ma la wax. Harouna Sall Harouna Sall entraîneur Papa Boy Djiné. entraîneur de l'équipe Waalo. démb Lamine Seck. waaw bi laaj na ko. affaire léegi loo si gis mu ne du bàyyi làmb. moom loolu la xalaatam moom moo bëgg làmb waaye làmb bëgg ko loolu xalaatam la. yow la mooy sa xalaat. sama xalaat mooy. Hmm. xale la. xale la waa léegi bu dee am na ñoo am na ñu wax ne wërsëgam nekkul ci làmb. loolu wax la rek xamuñu balaasu yàlla nit ku ko jël si toog. nit du toog place yàlla. baat ca kaw pourtant ma xamal benn. doomu aadama doo toog place yàlla. pourtant ma xamal benn xamuñu papa booy jinne nan lay génn suba. abu abu ma xamal benn affaire est que xam nga ne. man suivre naa Eumeu Sène maa ngi

ci ay commentaire ah. Hmm. am na ñu wax na bàyyi am na ñu ne na jàngi bëri. Hmm. am na ñu ne wërsëgam nekkul ci làmb. Hmm. est-ce xam ne man dama gëm ne wërsëgam mu ngi ci làmb. ñooñu wax damaa ko tas li mu wax. waaw léegi man na jàngi bëre. waaw papa boo jinne. du koy jàngaat bëre. mën na bëre. papa boo jinne bëre mu wane wu ko de. waaw feeñagul de. moo leen rek. bëreem feeñagul de. wërsëgam a nekk ci wàll xam nga sa wërsëg bu nekkul ci dara. Mhm. bu ñëwagul. Mhm. maanaam vidéo sans wërsëgam ni ci laamu de xëy na kenn taxul wërsëgam moo tax moo tax bëri bi nekk si Pape Boy Djiné yoon bi la gisagul gisaguñ ko yoon bi la gisagul mais yow ak man yoon ak ñun ñi nga xam ne yàgg nañu suivre Pape Boy Djiné yoon bi yoon bi la gisagul rek man ma tuuti rek mhm. Ismaïla yow mi ko yàgg suivre man ma yàgg ko suivre mhm. ak ñi xam Pape Boy Djiné mhm. yoon bi la gis c'est-à-dire gis nañu kenn saxalu leen suukar kenn saxalu leen lem ponkalu magum jëmm du bàyyi léppam topp ci ginnaaw kenn di yuuxu ci ay caaxaan Papa Boy Djiné ay supporters am dañ koo xamul. dañ koo bëgg rek dañ koo bëgg rek. xamu ko dañ koo bëgg mbëggeel la rek. non non non mbëggeel la coppeel la nit ñi bëgg lan. waaye eh, eh, nit day bëgg nit ci dara nit day gis nit rek bëgg ko loolu yàlla da koy def ci nit. am na ñoo xam ne dañu am leer. am na de nature. am na ñoo xam ne yàlla daf leen nattoo bayre de nature boo leen boolee da leen di bëgg da leen di sopp. loolu am na fi Seydina loolu am na fi Papa Boy Djiné. waaw yow ci lamb la ñuy wax man ci lamb laay wax. waaw waxal Papa Boy Djiné hmm. dafa mbapat waaw fekkee na Papa Boy Djiné waaw gis nga fii la ñu nekkoon hmm. Baye Radia kay boobu moom moom Mathia Sène. papa amul jiw jóge Gonaas ñëw fii di jàng métier. waaw fii sama garage. fii waaw comme ça. gëmul woon mécanicien. Mhm. ndax làmb. Mhm. Mhm. fii la doon bàyyi daw dem Gonaas dem nekk ci ay mbapat. papa booy jinne mbapat dañoo am kër Massar mu jóge Gonaas ñëw ba fii. dafa yàgg bëgg làmb yàgg koo noonu. mbër ñi nga xam ne xam nañ Papa Boy Djiné mm. daan ko topp mbapat mm-hmm. xam nañ Papa Boy Djiné mën bëri gi ne ci moom bëri bi feeñul ci arène bi nag c'est ça le problème waaw déggoo li ma la waaw mën na bëri mën na bëri équilibre waaw ñi fa doon ñëw ñuy contact waaw xool Papa Boy Djiné waaw li ñu doon def ci contact yi lépp waaw xam nañ ne Papa Boy Djiné mën na bëree. mais bëri bi feeñu ci arène bi. fit mi ci moom. fit bi mi ngi fa d' accord mën na bëri am na fit yooyee man man man moom doo ma ne ba ma nangul la. mais man déedéet. déedéet na dem la dëgër de na na dem la mbugal ko. li la dëgër di teg na la dëgër di teg caatuwaal na dem la la dëgër ko ci kéw duñ gis musculature. ba xam wóoruma nag stafurlaa yàlla ma yàlla baal wóoruma mais dégg naa benn yoon la dem ci laaj de laaj sifaay ko sifaay yu métti mu teg ci brique daw waaye qu'est-ce que ça veut dire na dem ci laaj de yow ñaabu ndaw nan lay def ñaabu ndaw laaj da koy mbugal ci tefes bi bañ ne dee na wala deewul bu ñëwee ci biir géew day jàpp daan yaa may dégg macca mi ngi noonu ku mu jàpp dala naan sa waay maa lay ëpp doole xadal ma ma jàll waaw mais attends qu'est-ce que ça veut dire na dem rey boppam ci entraînement yi. gis nga jël nañ fi temps yi passé. waaw mais attends qu'est-ce que ça veut dire. benn mbër jàpp sa rakk di ko défendre comme ça. Korok Scorpion bu ñàkk Korok. Euh, zoo technique zoo technique. waaw ñu ngi déggante démb téléphone. Scorpion ñu ngi ko jox combat ci ñaata fan. Euh, euh, une sax. moins de une semaine. moins de une semaine lañ ko. entraîné mu ngi woon ci dafa dem jour bi woon sànq zootechnique. Eh, am na ñaar yu delloo avance. brise de mer moo waroon bëri zootechnique. ab bëri ko combat bi des quelques jours combat bi yàqu. Ah. ñu woo ko démb démb la naa ma ko naa mu ne ma fii laa toog ñu woo ma ne la ne ma zootechnique leen joxoon na ma avance ma jëndee ko ma jëndee ko xaru tabaski. nee na mu entraîné waajalul dara. Hmm. moom demoon na ba commencé découragé pour bàyyi làmb. Hmm. parce que dafa daanu daanuwaat. donc hmm. un an deux ans trois ans kenn jox ko combat mu nar a découragé bàyyi parce que Cheikh Super Diamono moo ko daan. mu jóge ci kee daan ko euh, Aboy. mu toog un an deux ans bëriwul. jàpp trois ans rombal rombal rombal rombal vas-y vas-y vas-y nee na nag ne ko demoon na ba nar a découragé. nee na gars yi jékki-jékki combat une semaine ñu woo ko ne ko alors. soo te pourtant dafa daan koo xam ne kenn mësu koo daan. jeex na bul benn defet la am. ma ñëwaat ak yëpp c'était par avertissement. ma ñëwaat ak yow encore feneen. ñëwal. Euh, bul jinne. waaw mu ndaw. waaw jinne mu ndaw. jinne mu ndaw. waaw dof la. combat bi mu mujjee bëri. waaw moo ko cere waaw. waaw xoolal li mu daan. Cere da kañ nga ko gëj dégg. Moussa Cere gëj na bëri. kañ Cere nee ma grand bi moom tamit seeti naa ko mu ne ma grand bi may ko naan mu ne ma dama toog ñu ne ma combat ginnaawaat suba. ma xam ne aw dara lu ma ciy perte parce que duñ ma jox billet duñ ma jox dara. ma ne naa dem lu ma lu ma am jël te boobu moom jinne jinne boobu pare na jinne mu daw. boobu pare na pare wu ndànk parce que boo laajee lu mu wax la. boobu jeexul sax ñu koy teg. ba ci pôle bu daal li ñu teg jinne bu ndax dañuy pôle daal. ñu ko teg mu teg waaw xam nga de dèjà tegal ma. waaw ñëwal ñëwal waaw ñëwal waaw ñëwal. ni ñu ko teg mu tegoo. waaw dafa doon daanu jël bu nekk fay. waaw. te mosul daanu. te mosul daanu te combat yi ci des yëpp da daan bëri jàpp daan jàpp daan jàpp daan quatre combats quatre victoires. lamb bu ñu may indil ay muscle beeg bu ñu may indil ay mënul entraînement ak affaire yooyu mbër entraîné ba bëgg a dee ñëw ñàkk lambam. <laughs> mbër entraîné ba bëgg a dee ñëw ñu duma ko daane ko. exception à la règle mbër ñëw na. c'est l'exception c'est l'exception à la règle. waaw c'est l'exception à la règle. waaw waaw Modou Lo. yow sa waay yow yow. Modou Lo sa waay yow directeur technique nga. maa xam ko ci leen dama ko faa yow directeur technique nga. waaw waaw waaw yow di nga nangu sa mbër. waaw yow Modou Lo dama ko faa. waaw xam nga Modou Lo faa. dafa nekk balance balance mooy ñu bañ a def. waaw gëm ñu ne en combat. Mm-hmm. Mm-hmm. la gën a naqari mu ne premier sama premier jënd bi ma daanoo contre Balla Gaye. diggante Balla mars mu jógee fi war a préparer ak combat ak mm-hmm. mu jaroon ku nekk ci àdduna. kenn du ne mën doon ñëw na ci làmb ji. te du mu ñëw ñàkk. le janvier loolu benn la. waaw mu ñàkk deux fois. waaw contre Balla Gaye. ki ko daanoon daanaat ko. mun ko metti son rival. rival direct. mu mm, euh, Modou Lo. Mhm. Eumeu Sène. Mhm. Tyson la. Modou Lo mu daan ko. waaw jël bu le le le 31 janvier 2014. mu am ci lu ko naqari. Mhm. dem préparé waat. waaw entraîné

Eumeu Sène daan na ko ñaari yoon. daan ko ñëwaat daan ko. daan daanaat 2009 ci nekk da ngay jël làmb jox ko cër gi a jox alal a entraîné ñëw ki la daan nga xam ne kii moom a daanoon nga war a ko jàppaaroom du hmm. dama bëgg ñu jël ko te ko ci ah parce que yaa ngi théorie. non ni mu ko jël teg ko ci. théorie yéen vous êtes très fort am na ay réalité. vous êtes très fort en théorie. non non non. am na ay réalité théorie waaw lan ba réalité. dina laa ni du ma nangu kenn di ko balaame. man de dinaa ko balaame. lan ma lay def. man de dinaa ko balaame. c'est-à-dire bu ñëwee. palmarès palmarès zéro. waaw li supporter. koo lamb bu tuusee ñu kontaan. dañuy dem ba beneen sax. palmarès zéro. dañuy dem ba beneen sax. dix combats am na ñoo xamante ne si. sept défaites xaaral combat bi. waaw xam nga lan moo fa doon. lan moo la fa doon am na ñoo xamante ne dañu bëgg ñibbi ndax ambiance bi ci kaw. waaw loolu lamb la résultat bi la def résultat foofu ko woor bi ci kaw. waaw neex na ba nga xamante ni satisfaire boo xam ne dafa amoon stress ñëw. dafa na lu neex wax ma. lu rëy noonu jaral na ndagg waaw waaw d'accord mais le résultat da la jàpp ku daan dañuy laaj. ku daan ku daan ku daan ku daan naan defal moo ko a leeral leen. am na loo xamante ni si. Hmm. xam nga lan moo leen indi si làmb. lan moo leen indi bàkku waaw dóorante bi sax ak xeex bi yow neexu leen. non man gis ay deret ay man am na mbir yoo xam ne daan naa leen topp mbapat sax su ma doon photo nii bu ñuy bàkk damay bàyyi li may def dem taxaw seet. bàkk moo leen neex waaw suñu bàkkoo mu neex. waaw yaa ngi dégg. waaw indi supporter. waaw feesal stade bi. waaw ful bi supporter lu rafet. waaw nga bàkkoo bu neex. résultat final résultat final nga jàpp daan. yaa ngi dégg jàpp daan. wala daan moo résultat final bi. wala daan waaw d'accord. wala daal léegi léegi c'est-à-dire dama nit du dugg ci diggante daal ak daanu say say tegal ma Papa Boy Djiné tegal ma Djiné mu ndaw léegi dañu Papa Boy Djiné tegal ma mu ndaw waaw Djiné mu ndaw waaw mën na bëre waaw am na fit waaw ñeme na entraînement waaw Djiné mu ndaw dafa ñeme entraînement waaw sama baat ca kaw waaw sequma ak moom dara sax mën nañu wax ne ñu foog ne sama boy la tous dafa ñeme entraînement lépp lu nekk ci Djiné bu ndaw rek ci Djiné bu mag déedéet lu leer la déedéet déedéet boo ko xool xoolal jinne bu ndaw ni muy ni muy doxee. yow te nga papa nga dem entraîné ji. dama ne xoolal jinne bu ndaw ni muy doxee xool ko ni muy dawee. waaw xool ko ni muy waxee. waaw ba ci tur bi moom la ko jox. lépp moom la ko jox. xoolal. waaw da koo yàgg a suivre depuis Mbapha. waaw moo ko bëgg loo bëre. moo tax ma ne la papa yàlla da koo da koo may leer bëgg loo bëre. papa yàlla da koo may leer. jinne bu ndaw bu bëggee bëre bay bëre papa boo jinne moo tax. waaw léegi léegi. Lady, lady, su gisul Baboy Djiné ñàkk jom wala ragal entraînement wala ragal ragal entraînement mënul entraînement yaa ngi dégg mën naa wax tey boo demee Djiné bu ndaw waaw mënul entraînement dina la wax ne combat bi béy na ci yoo xamante ne si moom ñaan ñoo ànd Djiné bu ndaw de gis ci moom ñeme ko seedal ñeme entraînement du ma ko seedal Baboy Djiné parce que gisoo mais sa waay ku sumee taxaw ci géew ñu xam ne kii rey wala mais mais ñi nga def ci entraînement def ci contact ñi nga am vidéo yi mm-hmm. di ko gis mm-hmm. ñun xam nañ Papa Boy Djiné li ñu doon wax nee naa la encore une fois